wasalaatu wasalaamu ala asrafil anbiyaai wal mursalin sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain allahumma axrijna min zulumaati lwahmi wa akrimna bi nuuri lfahmi waftax calayna bi maxrifati alcilmi wa xassin axlaaqana bilxilmi wa saxxil lana abwaaba fadlika wansur calayna xazaa'ina raxmatika yaa arxama arraximin yaa rabbal caalamiin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 ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu boole ñu sàmm di nuyu jàngkati alxuraan yi di nuyu jàngalekati alxuraan yi di nuyu sëriñ si di nuyu soxna yi di siyaare bu baax mboolem ñi nga xam ne ñoo tëdd ci lalu hôpital yi yal na yàlla saafara leen ak ñi nga xam ne ñoo tawat te di ko wéyaale ne ci kër yi léeg-léeg ku tawat day jege boroomam subhaanahu wa taala moo tax ñoo ngi sàkku ci yéen ñaan yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci am njàngaleem bokkoon na ci ku seeti ku feebar sàkku ci moom mu ñaanal la ndax li muy tegtale mooy kooka moom bu dee ab jullit la yàlla fàttewu ko yàlla fàttewu ko nitu yàlla ñi daan xeeñtu lu baax te daan ci góorgóorlu ku ci masaana am lu lay metti da ngay sant yàlla lool boole ci bég ndax dangay ngay yëg ne yàlla fàttewu la waaye nag dangay ngay delluwaat sa ginnaaw di xool ba xam loo def ñoom dañ daan tiit ci bu leen dara dalee ci ñoom lan lañ def ba lii war leen a mën a dal bu seen alal réeree ñuy xalaat ndax dañoo wax wax ju jaaduwut wala dañoo def bàkkaar bu seen yaram amee tawat ñu xalaat yu mel noonu ndax loolu aw déggin wu am solo la te manees na ko yaatal dafa am ñoo xam ne suñ borom subxanahu wa taala parewut ci waxin ngir dugal leen sawara ëllëg yowmal parewut itam ngir mbugal leen ci seen bàmmeel parewut ngir ñu dund benn jafe-jafe moo tax ñoom njuumte luñ def ci àdduna rek daal di dajeeg euh, fay ga ci saasi muy nattu yi nga xam ne mooy tegu ci seen kaw ndax seenu góorgóorlu ci jaamu yàlla moo leen may loolu àgg nañ ci borom bi subxanahu foo xam ne amul lu muy fayonteeg ñoom fële moo tax seen lépp fii la koy regle waaye nag buñ daan toog lu yàgg itam ñoom nit ñu baax ñooñu dara méttiwu leen tawatuñ jàmbatuñ dara dañuy tiit dañuy tiit ci seen borom subhanahu wa taala ndeysaan nga xam ne bu doon yàlla kuy fàtte la dañuy jàpp ne sax yàlla da leen a fàtte waaw dañuy tàmbaliwaat di sàkki sarax di jéggulu seen borom ndax naan baadu daf may daf may yollu ngar ndax ñaare am ki nga xam ne bëgg nga koo jubbanti léegi ndax bañ njuumteem yi bari mu def njuumte ci saasi rek nga jubbanti ko yàlla am na ñoo xam ne noonu lay def ak ñoom maanam nattu yim leen di teg ci àdduna yiw réy wam leen dencal àllaaxira tax te àdduna moom daa baaxul moo tax saa yuñ fi defee njuumte rek nattu tegu ci seen kaw waaye nattu boobu niñ koy muñee ak niñ ciy doxalee ma ngay yokk seenu yiw ëllëg yow mal xiyaam ma ngay gën a bari am na ñoo xam ne foofu lañ toll seen digganteek seen borom mu bëgg leen lool yéene leen yiwu ëllëg ba àdduna moom du leen muñal dara waaye am na ñoo xam ne ñoom fi ñu toll mooy dañuy ndaataata lax rek di gundaandaat fàtte borom bi subhaanahu wa taala nga xam ne ci mooy la nekk ci bàkkaar la nekk ci wax lu ñaaw la ñu nekk ci nuur ci ay caaxaan la nekk waaye nag innama numli lahum li yasdaadu isman rek waaw borom bi mel ne di leen di yollu ngar rek bàyyi leen këpputal rek ñuy gën a yenu ay bàkkaar ba gëna diif diis yàlla nañu ci yàlla musal moo tax nattukaayu àdduna du caagi ne ku ne ci xéewal la wala ku ne ci ay jafe-jafe nattukaayu àdduna leneen la yëg yég la yu nit ki am digganteem ak boroomam subhaanahu wa taala moo tax ñu la doon jàngal ci yar sa bakkan la am na koo xamante ne danga ko fekk mu toog bu doon da ngay xeeb nit ci col nga xeeb ko ndax yam sol ràpp na ràpp na furi na tilim na bu fekkee da ngay naw nit ci dëkkuwaay doo ko naw ci dëkkuwaayam ndax dëkkuwaayam bi mu dëkk yéeme na trop ci màggataay ak yi nga xam ne moo ci aju bu dee ci koom-koom nga koy nat doo ko naw ndax day mel ne amut aw des amut sax lu faj ay soxlaam ba muy amu des waaye nag poam ca borom bi subhaanahu wa taala kenn xamul nu mu toll ma nga diis gann gann gann gann ca balance suñ borom bi subhaanahu wa taala moo tax looloot mat naa xàmmee looloon mën naa xàmmee ku yàlla xéewal nag ci àdduna bu sañoon xéewal gi feeñ ci yow bu sañoon xéewal gi feeñ ci yow maanaam dëddu àdduna ci xol lay nekk yal nañ ko dëddu ci suñuy xol donte àdduna moom nekk ci suñuy loxo mën nañoo dimbali ci lu bari mën nañoo dimbali ci lu bari yëg-yëg bi bu ko jullit amee bu fekkee dafa ñàkk ñàkk gi day oyof ci moom su fekkee dafa amit am am bi day oyof ci moom ndax nit alku na ba tàbbi sawara te ak ñàkk ko fa yóbbu waaye nit alku na ba tàbbi sawara itam te am am moo ko fa yóbbu li tax a mucc te ne ci diggante ñaar yooyu yépp mooy ak nite ak nite looloo taxoon yàlla doon yónni yonente yi alayhimu salaatu wasalaam ngir ñu tàggat nit ñi ñoddi leen indi leen ci ñu jëm ci ak loolu jaar nañ ci nit fu nekk jaar nañ ci nit fu nekk ba ñu baree bari ca nit ña góor góorgóorlu nañ ba nitee ca wooteem booba ba xàmmee ba xàmmee yëg ne àdduna jaaruwaay la àdduna jaaruwaay bu gàtt la yàlla xam na ko kii dundu te wér te toll ci dooleem du yëg ne jaaruwaay bu gàtt la waaye bu xoolee rek ci ginnaawam xool at yi wala mu dem ci armeel si siyaare ji ko xam ne jaaruwaay bu gàtt la boo duggee ci armeel yi ba gis dat yi di wa tëdd fii dat sàngam li juddu dat sàngam li fi tëdd nga xool di tëdd fii dat sàngam lu juddu dat sàngam la fi tëdd am ñoo xam ne tëddagun nañ ñaar fukki at nga gis ko am ñoo xam ne daaw lañ tëdd am ñoo xam ne ren lañ tëdd am ñoo xam ne weer wii lañ tëdd ba ba ngay ñëw ci ki nga xam ne bisub tey jii la tëdd àdduna jaaruwaay bu gàtt la nga xam ne nit ki daa dox ba toog ci ker rek dangaa dox jëm ci dëkk dangaa dox jëm ci dëkk di tukki ba mu yàgg nga escale xam ngeen escale ki nga xam ne dafa escale ci barab daal di bëgga bëgg nag tabax fab étage ca barab bam escale lu ne mu def ko fa investir fa alalam ak waxtoom yépp te jëmu doon foofa pertan ngi mënta weesu loolu àdduna nag noonu la mel moo tax du ma wax ne tabax fa waaye nag tabax te yóbbu ab yobbal fa nga jëm walal axiratu xayrun laka minal ula loolu la alxuraan wax alaxira gën te mooy kër gu mujj gi yàlla nañ fa dajee ngërëmul borom bi subxanahu wa taala waaye yàlla nañu defal àdduna ju teey joo xamante ne danañ xàmmee ba li dal ci suñ kaw moo xam nattu la moo xami mettit la ñu nangu ko muñ ñu nangu ko muñ yal nañu ko yàlla defal yal nañu ko yàlla defal ñoo ngi ñaanal ñi nga xam ne ñoo tawat ñëpp ni ma ko waxee léegi yal na yàlla saafara leen ndeysaan ñi nga xam ne ñi ngi xool seenu njaboot yal na yàlla sàmmal leen seenu njaboot ndax moo mën a sàmm ñu dañ na lu ne ci njabootam ba noppi njaboot ga xëy féttéerlu nangi faaw di dem waaw jamono ji ñu toll ku am njaboot rek bokk na ci problème yi nga njëkk a am te gën caa xalaat mooy sa njaboot gi sa njaboot gi waaw xale yi nga góorgóorlu boo génnoon léegi ni may waxtaan ci mbedd ndakaaru yi ba gis ñi yóbbu seen doom yi ñuy jàngi ndeysaan ñi ngi sonn di kof kofi di taamu dugal ca école ya nekk ci coonab xale yi lu ne nga daj ko ci waaye nag mbedd mi am ñuy fëkkee ak luy fëkke loo xamante ne temps bi nga def ci sa doom boo moytuwut temps ba ca ñooña di defa ko ëpp boo ko defee ñu xëy nangi faawo xeeble yow mi seen yaay wala ñu xeeble yow mi seen baay xeeb say xalaat ak say conseil di ko jëlee ci mbedd mi cànkute ñëw cànkute ñëw loolu laa doon wax ne eh, lu tere nelaw way jur yu bari mooy njaboot gi waaye jur woo xam ne sa jubug njaboot tee na laa nelaw bay boon nga sant borom bi subhanahu wa taala ndax yëg nga responsabilité bi nga xam ne moo tegu ca kaw yëg nga ko te responsabilité boobu tuutiwut responsabilité bu rëy rëy boo xam ne ku tegu ca kaw rek nga jaaxle lool nga jaaxle lool moo tax ci jaaxle googu ci lañ doon waxtaane lu jëm ci wàllu jooy ba agsi woon ci doon jeexal bunt boobu agsi woon ci waxi borom xam-xam yi asalafu saalix seenu déggiin ci liñ doon waxtaane ginnaaw biñ indee aaya alquran indi ci ay ahadis war koo jeexal incha allahu taala Eh, kenn ci mag ñooñu di abu suleyman da doon wax naan awidu ahyunakum albukaa wa xuluubakum atafakkura da doon wax naan tàmmal leen seen bët yi ay jooy te yàlla tax waaw bët daa bokk ci ay njariñam di jooy te yàlla tax ndax jooy fi mu ne day faj jooy day faj ji boo toogee lu yàgg yàgg yàgg te jooyoo mën naa am sax lu mu def ci yow waaye fi mu ne ki ami problème ami jaaxle jaaxle wala mu am yu muy xalaat wala sax yenn bopp yuy metti yi wala yenn eh, yenn stress yi nga xamante ne day gaar nit eh, tey bu ci xalaatee wala mu wax ceeg nit ba xolam tooy mu jooy ba mu dañ nga gis bopp bi daal di tàmbalee oyof mu tàmbalee féex mu tàmbalee féex moo tax maa ngi yërëm ñi nga xam ne kenn du leen déglu ñi nga xam ne kenn du leen déglu ndax am na ñoo xam ne natt yooyu la leen yàlla nattoo am na ñu ñuy yëg ami problème bëgg koo wax waaye seen yaay du leen déglu boo demee sax faatu na nekkatu fi seen baay du leen déglu boo demee amul seen jot amuñu ay xarit yuñ wóolu ba mën a partager ñoom seen i yëg-yëg seen i jëkkër duñ communiquer ak ñoom bu dee bu dee jëkkër seen i jabar duñ communiquer ak ñoom nga xam ne amoo fenn foo vidéo amoo fenn foo vidéo li ngay wéyaale yaag yàlla dong xam waaye nag lu tuuti la boo amoon ku la déglu rek boo ko waxee ba mu jeex nga féex waaw boo ko waxee ba mu jeex nga féex moo tax maa ngi koy wax ndeysaan menn mbokk ne ko dana jaar sax nga dem tëju ci néeg bi taal sa enregistreur yow dong na nga ko essayé yow mi ami jafe-jafe yooyu te mënoo wax ak kenn ngay wax waaw waxal lépp génneel bul téyee dara del wax di wax di wax di wax di wax di wax di wax ba mu jeex waaw bu jaree jooy jooyal bul jooyantu jooyal bu baax ba sa rangoo ñi génn boo noppee nga taal li nga enregistré woon dégluwaat ko nga déglu sa bopp mhm, déglul sa bopp boo dégloo sa bopp mu wax ba mu jeex nga effacé ko ndax moo gën a wóor nag na ko effacé bu ko ci bàyyi jamono neexut waaye ci saasi rek da ngay yëg ni yaa ngi tàmbalee féex da ngay gis ne problème bi moom wàññi nga ko bu baax a baax a baax féex nga ndax sax boo dégluwaatee sa bopp jamono ji ngay déglu sa bopp di wax yaay amal solution sa bopp ci yëf yi ndax day mel ni nit a ñëw di wax ak yow <laughs> cey loolu ma lay jox boo xamoon waaw day mel ni fi mu ne nit ay ñëw di la conseiller waaw yow nga dégluwaat sa bopp ba mu jeex léeg-léeg sax doo kontaan ci sa bopp léeg boo dégluwaatee sa bopp ba mu jeex doo kontaan ci sa bopp yow ci sa bopp yaay eh, teel a xam ne lii du lii du lii mbir yi waaye ala kulli xaal bu dee nelawoo woon da nga nelaw bu dee eh, am na lu la jaaxaloon dana tàmbalee oyof ci yow. waaw mu teg ca nag moom boroom xam-xam boobu mag mu baax moomu daan ne na ngeen tàmmal seen xol yi nag di xalaat di xalaat di xalaat borom bi subhaanahu wa taala toog ne cell di xalaat borom bi subhaanahu wa di xalaat xel loolu lay jariñ xol xel loolu lay jariñ al fikru fi dunya xijaabun anil axira wal fi axirati yurisu xikmata wa yuxyi xuluba Mm-hmm. loolu la boroom xam-xam ba wax nee na xalaat mbiri àdduna kiiraay lay doon luy dox diggante nit keeg àllaaxira waaw bu dee ci àdduna nga nekk rek am na ñoo xam ne seeni xalaat yépp mbiri àdduna la fi mu ne ay projet rek ay conteneur ma investir ma def nangam ma def nangam waaye fàtte nañ yàlla fàtte lépp xalaat yee baax na nag waaye na nga ko booleeg nag def loola muy yëngutu yëngutu yi waaye dal gi nag doon xalaat nag mbirum borom bi subhaanahu wa taala ak li la indi ci kaw suuf ndax yaa ngi koy matale nee na loolu day yóbbu nit ki mu am xikma waaw mu am xikma xikma nag mooy solution ci mbir yi dootu dootu doon ku jaaxle dootu doon ku tiit dootu doon ku am ay ay déng-déng xol waaye itam xalaat yooyu itam day dundal ab xolam day dundal ab xolam yal nañu yàlla may xol bu dund waaw bu sab xol di dund dangay ngay mën a yërëm bu sab xol di dund da ngay mën a jooy bu sab xol di dund dangay ngay mën a dimbalee bu sab xol di dund da ngay yëg borom bi subhaanahu wa taala waaw da ngay doon nit koo xamante ni nit ko nit nit ku nit ku am yëg-yëg nga xam nga di bàkkoo man damaa dëgër man mënumaa jooy damaa dëgër du ma jooy mukk nga xam ne yow loolu ngay bàkkoo xëy na mu nekk dëgërteg bind ndax li may jooyloo mën na laa bañ a jooyloo yow waaye nag am yëg-yëgu xol moom ab jullit da ko war a am moo tax borom bi subxanahu wa ba muy wax ak tagg borom xam-xam ya di tagg ñi nga xam ne ñooy nit yàlla ñi jege borom bi subxanahu wa nee na ñoom dañoo am. ay yëg-yëg dañoo am ay yëg naa la ko ca aaya fi jaaroon inna alladina utul ilma min qablihi ida yutla alayhim di dem di dem ba wax ne wa yaqiruuna lil asqaani yabkuun allahu akbar dañuy jooyal seen borom subhaanahu wa taala dañuy rot di ko sujjootal waaye dañuy tiit ci màggu borom bi subhaanahu wa taala eh, Salim ibnu abi jahdin nee na yonent yàlla isa alayhi salaam daan na wax naan tuuba liman baka ala qatiatihi wa qadana lisaanahu wa wasiahu baytuhu nee na yonent yàlla isa alayhi salaam ab jullit moom yonent yëpp lay gëm yonent yëpp lay gëm waaye yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam mooy ki nga xam ne la yonent yi nekkoon yëpp ci moom lañ ko sotti moo yonent bi yonent yi moom lañ ñu waaye nag ci seeni wax léeg-léeg am ca yoo xam ne day méngoo gi ñu jàngale ci wàllu jikko mu nekk ay joxoñ newoon na texe ñeel na koo xam ne day jooy ay bakkaaram day jooy ay ñaawteefam mhm. léeg-léeg nga sëgg ci ñaawteefi nit di ci débat di ci débat di ci débat sa dund gépp fàtte sa bopp fàtte sa bopp wallahi fàtte sa bopp te moo ne def nga loo xam ne léeg-léeg gaa yi naan eh, sëgg ci leetarub jàmbur te denc sab journal léeg-léeg ñu waxe ko noonu waaye ala kulli xaal l'islam moom li mu bëggoon mooy kenn ku nekk na la sa bopp doy guddi sax loolu daa bokk ci li muy jariñ guddi daa bokk ci li muy jariñ xalaat sa ñaawte yi nga yendoo daa bokk ci li muy jariñ am jomi mën koo tuub du ñàkk jom de waaye tuub boobu moom jom la mooy jomi delloo sa borom subhanahu wa taala ak moomeelam am ngore gu toll ne won ko ne ko yaay yàlla won ko ne ko won ko ne won ko ne ko yaay yàlla moo tax beneen nitu yàlla bu ñuy wax sa riyu asiqit yi day wax ne ragal yàlla alxaayif ragal yàlla neen dafa am ay maqaama dafa am ay degré dafa am ay degré mhm. bokk na ca ragal yàlla ca degré ga ragal borom bi subhaanahu wa taala maanaam di ko yëg ragal ga waaye bari looy jooy bari looy jooy ci màggu borom bi subhaanahu wa taala di tiit ak di ko yëg waaye di toroxlul borom bi subhaanahu wa taala fi leyli wan nahaari waaw doon koo xam ne da ngay toroxlul borom bi subhaanahu wa waaye ngay daw ab coona ngay daw ngay daw ab nooflaay waaw sori barab yi noppalu di kër kër yi di sonn ngir luy tax nga am ngërëmul borom bi subxanahu wa taala ni ngay kër kër yi ngir am euh, résultat wu àdduna ngay kër këree noonu ngir amee ko ngërëmul borom bi subxanahu wa taala bu yéene ji sellee sax te nga xàmmee ñaari yëpp day mujj nekk benn. ñaari yëpp day mujj nekk benn yëngutub àdduna bi da nga ci am tiyaaba waaye ñun li ñuy tuddee yëngutu te yàlla tax da nga ciy am tiyaaba ndax borom bi daa digle liggéey. ba pare soññee ci danañ ci ñëw incha allahu taala ci bindi waxtaan yi danañ ci ñëw ki nga xam ne mooy mooy Yasid ibnu may sara na wax ne al bukaau min sabatil asiya nee na jooy jooy juróom-ñaari yëf dana ko waral jooy mi ñu doon waxtaane léegi nee am na jooy yoo xam ne kontante moo koy waral nit ku bég bay jooy léeg mu daan am ci séet léeg gis kuy jooy waaye merut daa bég daa waaw da nga koo may da koo may xaalis bu bari wala nga may ko oto <laughs> waaw nga may ko oto mu bég bay jooy wala yu demee noonu wala nga wax ko wax ju neex wala mu gis ku mu bëgg lool di jooy yooyu yëpp day am waaw loolu yëpp day am wala nga nga woo téléphone sab soppe jot ko di jooy waajaa ngi jooy waaye du jooy du jooyi njàqare waaw jooyi mbégte la jooyi mbégte saan am na jooy yoo xam ne nag jooyi njàqare la waaw bukaaw minal xusni waaw ku jaaxle di jooy tiit waaw tiit am ay problème mu stressé la ba nga tiit di jooy am na jooy yoo xam ne itam jooyi ngistal la <laughs> jooyi ngistal le la mu am di di jooy te fekk jooyoo da ngaa bëgg a ne da ngaa kontaan te fekk yàlla xam na ne li ñuy def dara ñuru la ci waaye yow ab sóob man nga waaw bu defee ñooñu nag ñoo gën a doy waar moom waaw ñoo gën a doy waar te mën a trompé te mën a trompé mbooloo jooy Eh, yuuxu def yëpp waaye lay yàq mbooloo ma ca ñoom lay jógee yàlla nañ ci yàlla musal mooy jooyi jooyi ngistal jooyi ngistal am na jooy yoo xam ne jooyi cant la ndeysaan ci jooyi mbégte yi lay bokk ak jooyi yëg li la yàlla defal léeg-léeg mu am nit ki jooy am na jooy yoo xam ne jooyi ragal borom bi subhaanahu wa taala la wa bukaun min xashyatillahi taala di jooy ndax ragal borom bi subhaanahu wa taala allahu akbar moo tax fa dalika allazi tudfiu damatu minha amsal al buhuri min an naar waaw rangoñ yooyu nit ki di génnee bi muy jooy te ragal yàlla dongu tax fépp benn toq rangooñam mën naa faj mën naa fay ay géeji géeji géeji sawara waaw ay lumbi lumbi lumbi sawara rangooñam yooyu da koy fajal waaw rangooñam yooyu da koy fajal moo tax woykat ba ashuara ñenn ñi di wax ne kaabum nu malik la doon woy naan bakkat bakkat ayni wa xuqa lahaa bukaaha wa maa yuxnil bukaahu wala al awilu ndeysaan waaw <laughs> bakkat ayni wa xuqa lahaa bukaaha wa maa yuxnil bukaahu wala al awilu mhm. jooy ma ngay woy ala asadil ilahi xadaatan xaalu ahamzatu daakum rajulul qatilu aba yaxla lakal arkaanu huddat wa anta almaajidu albarru alwasulu alayka salaamu rabbika fi ljinaani muxaalituha naxiimun layu yusaalu jooy lu am solo la waaw jooy te yàlla tax lu am solo la waaw woy naa ko dencal Oustaz Alioune Sall ci ngëneel yi bu fekkente ne maa ngi koy jeexal tey jeexal tomb waxtaan woowu jooy kon am na ay ngëneel boo dégloo li ma ci jot a wax ba agsi ci war koo jeexal tomb boobu jooy day tegtale ragal yàlla nit ki ak euh, wéetal gum koy wéetal ak muraaxaba gu muy def digganteem ak borom bi subhaanahu wa taala al bukaau dalilun ala xashiyatillahi wa muraaxabatihi waaye jooy loy luy tegtale la baaxu jaam bi ak sax ci ak njub gum sax ci ak njub al bukaahu dalilun ala salaaxil abdi wa istiqaamatihi waaw moom la Oustaz Alioune Sall di tudde ma xëm ma xëm mooy nga am yëg-yëg ba léeg am loo xamante ne day ñëw nga nga xëm ca saasa ñu baax ñëpp daana leen dal waaw mooy tuur ay leer ndax yëg sa borom ci am mbir léeg mu doon loo xam ne day jaaxal nit ñi lan la waaw moom daal ci ci circulation bi ngay waxtaan rek waaje jékki-jékki daal di daanu ndax moom yëg na ca boromam subhanahu wa taala albukaahu yurisul xafwa xawfa min allahi wa huwa alaamatun ala sixati al iman jooy daa bokk ci li nga xam ne day yóbbe nit ki ragal borom bi subhaanahu wa taala ta màndarga la ci ak ngëm yàlla gu dëgër albukaahu tariqun muwassilun ila mahabbatillahi wa ridwanihi jooy aw yoon la wuy yóbbu nit ki ci bëgg borom bi subhaanahu wa taala waaye di dox ci luy tax nga am ngërëmam albukaahu dalilun ala riqati alqalbi wa albukaahu simmatun min samaatil xaashiin kon xalaat borom bi subhaanahu wa taala ba tuur ay leer waaw ba tuur ay leer noonu lañ koy waxe ba tuur ay leer ci yiw yi la bokk ci yiw yi la bokk te itam jàngaloon naa la aaya ba tàmbali waxtaan wi borom bi subhaanahu wa taala nee na ulaika alladina ijtabaynahum wala boog ulaika alladina an'ama allahu alayhim min annabiyina min zurriyati aadama wa mimman hamalna maa nuuhin wa min dhurriyati ibrahima wa israila wa mimman hadayna wajtabayna ida tudla alayhim ayatu rrahmani xarru sujjadan wa bukiya waaw ñim doon tagg tey wax ne ñooy gaayu baax yooyu lim leen nee na daa bokk ci seeni màndarga buñ leen jàngalee aayay borom bi subhaanahu wa taala rotal seen borom sujjootal ko waaye dañuy jooy ndax seen borom subhaanahu wa taala dañuy jooy di jooyal borom bi subhaanahu wa taala waaw yëg-yëg la yëg-yëg la moo tax allahuma ijaal nii minal baakiina ilayk bokkoon na ci ñaane yonente bi alayhi salaatu wasalaam waaw yàlla yàlla na ñu boole ci ñi nga xam ne danañ jooy ndax ragal la waaw alxaashiina lak ba ko waxee da caa teg ne xarru sujjadan wa bukkiya allahuma ij'alni min ibadika almun'ami alayhim almuhdiyina alsaajidina laka albaakiina inda tilawati ayatika waaw inda tilawati ayatika waaw ñi nga xamante ne dañuy jooy ci buñ déggee ñuy jàng sa aaya yi waaye dañ lay yëg dañuy yëg borom bi subhaanahu wa taala ba mu yóbbee leen ci eh, loola mën a tuur seeni rangooñ yal nañ ci yàlla boole ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu may ñu ñu di ko yëg waaw may ñu ñu di ko yëg di ko daj waaw di ko dund bu ko defee dana feeñ suñuy wax dana feeñ ci suñuy jëf